asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziara di leen indil tey benn secret bu jëm ci wàllu diggante yi ba tey tey nag nekkul dara lu dul rek eh, julli bi moom julli la maanaam bu ñu waxee julli na nekkul julli farata eh, mën ngeen ko tuddee naafila te ñaari rakk lay doon te boo defee premier rakk bi yaa xool ay yu la neex nga jàng ko si waaye si deuxième. rakk bi si dernier sujjóot bi maanaam ki ngeen gis si suuf noonu ni mu def maanaam si sujjóot bi afaa ngay jugaat foofu nga war a defee ñaan bi ñaan bi nag incha allah nekkul lu jafe waaye dinañ ko wax léegi ni ngeen ko war a defee ki am diggante boo xam ne dafa ñagas nga bëgg mu rattax sa diggante sa jëkkër sa diggante sa jabar sa diggante sa mag sa rakk sa papa sa patron ku mënti doon daal incha allah kon mu nekk euh, kii bu am solo ñaan bu am solo incha allah ngeen fas yéene koo def ndax baax na trop muy da ngeen commencé maanaam bi ngeen su jotee noonu ngeen def astaghfirullah azim lazi la ilaha illa hu hayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah azim lazi la ilaha illa hu hayyul qayyum wa atubu ilayhi da nga koy def euh, ñetti yoon dégg nga waaw boobu noonu da koy def ñetti yoon fekk boobu yaa ngi sujjóot ba tey dernier sudda bi ci jur bi nag laa wax boobu ngay def ñetti yoon mooy astaghfirullah bi ngeen gis ni ba wa atuubu ilayhi gis nga ko ni seen écran bi sax mi ngi noonu léegi bu ko defee mu tegu si bat bi di yaa aliman anta bi alina alim boobu itam da koy jéem a def ñetti yoon nga def asaluka an tajuda aliya bi ghadai haajatin innaka xaadirun ala kulli shay'in ya rabbal alamina boobu itam da nga koy def benn yoon dégg nga su ko defee après balaa ngay jóg nga ñaan sa soxla bi nga bëgg yëpp moo xam sa diggante yaak nit ki moo xam sa jabar la sa jëkkër la sa mag la sa rakk la sa patron la kom mënti doon nga ñaan li nga bëgg sa diggante ak kooku fekk boobu yaa ngi si jot lii nag nekkul looy def nekku ne da ngay def ay affaire yu demee noonu moom lool kese la ñaari rakka ngay julli rek def loolu yomb na kon ngeen fa yéene koo def incha allah képp ku si am jafe-jafe rek ngeen def loolu noonu bu ko defee yàlla mën a saafara loolu incha allah kon ñu ngi leen koy ñaanal yal na yàlla gën a rataxal diggante yi neexal sëy yàlla guddal fan yi wér cër yi ñi nekk feebar yàlla yëkkati leen ñi nga xam ne ñu ngi ut liggéey yàlla may leen ko ñi nga xam ne ñu ngi bëgg wërsëg itam yàlla may leen ko te ñuy def su lu baax incha allah kon ñu ngi leen di jox di daje bu suba jàmm incha allah asalaamaaleykum